waaw salaamaaleykum internautes yu Diégo Parle Foot nuyu naa leen jaar leen bàyyi nañ si jàmm di wax képp koo xamante ne gan nga ci suuf chaîne bi duñu la wax leen lu dul nga abonné te activer cloche bi ndax vidéo bu ñu dugal di nga bokk ci ñu koy njëkk a gis wéy leen di like di commenter ak a partager loolu ngeen ñu mën a jàppalee bu baax a baax. ñu ñëw ci Iliman Gayne Ndiaye bi nga xamantene encore une fois il a éliminé la championship donc aujourd'hui il a délivré son 12e passe décisive cette saison foofee ci championship donc tay ji ci seen match bu doxoon ci diggante ñom ak Birmingham City ñom ñu gagné 2 buts à 1 ci deuxième bi bi nga xamantene wa waa sifili dugal nañ ko Iliman Ndiaye moom mo délivré passe décisive bi kooku nga xamantene moy mooy Makat donc mu nekk bi boo xamante ne euh, bi bu am solo la looloo waral sax ñu gagné match bi donc même si kay yéeg nañ euh, instant bii nii fële ca championnat bu Angleterre première division bu Angleterre mais Iliman Ndiaye encore une fois illustré wu na wane wane na boppam wane fulla ak fayda ak jukkay gaynde Ndiaye confirmé saison bu exceptionnelle bi mu réalisé foofu noonu macha allah. en tout cas ñu ngi koy ñaanal rek ñu ngi koy ñaanal donc 15 bi 12 passes décisives foofee ca championship du ñëpp ñoom ñoo ko mën a def ah, du ñëpp ñoom ñoo ko mën a def kon lii dañ leen andi doon di wax képp koo xamante ne gan nga ci chaîne bi ñoo ngi lay ñaan nga abonné te activer cloche bi jaay ngeen jëf.